ginnaaw nuyoo bi ñu santi leen gërëm leen ànd beeg alxaaji Malick TV am na solo lool ànd boobee yàlla na jëm kanam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax tey jii ah, ci altine ji nga xam ne revue de presse yi ah, moom la ñu dugg di ko commencé ak gaynde yi nga xam ne ah, démb nag danoo jógee foofee ca réewum France ngir jëm fële ca Doha di waajal li nga xam ni moom la ñuy amal fële nga xam ni mooy réewum Qatar loole di am solo bu baax a baax gone yi ngeen gis leen noonu euh, bi ñuy dugg ci abion yi nga xam ni moo nekkoon Air Sénégal di dem fële nga xam ne mooy réewum Qatar di coppati seen coupe du monde boo xam ne coupe du monde bu nar a am solo ci gone yi Sénégal yi euh, fi mu toll nii nag euh, journal yi bi ñuy xëdd rëdd seen i xët yu njëkk booba daanaka miin wi heure jot na waaye gone yi fii may wax ak yow ak gënnan fa nga xam ni moo nekk doxawaa ci wal boo xam ni Air International bu Sénégal lañ ko defoon loolee am solo bu baax a baax record yéen a tamit ci loolu la ñuy baax a baax ba beneen yëglekaay wis sport nga xam ne daanaka dafa teg ci taabal ji juróom fukki bit ak ñaar yoo xam ne ñetti attaquant sénégalais yi belli nañ ko kon attaque Sénégal boobee di dem ci coupe du monde ci sélection yi juróom fukki bit ak ñaar la ñu yóbbaale loolee gën a dalal xel yi nga xam ne daanaka bu ñu gëstoo bu baax a baax loolee am solo bu baax a baax ci li nga xam ne mooy kanam gi ndax gone yi xel mën a dal ci ñoom bu baax a baax loolee wis sport moo ñëw ci yëglekaay bi nga xam ni moom la teg ci taabal ji beneen yëglekaay di soqi ko ci biir réew mi ñu naan ko réew mi euh, quotidien réew mi quotidien moom image yi nga xam ni euh, gone yi euh, départ nañ fële nga xam ni moo nekk France jëm fële nga xam ni mooy Doha ca Dubaay loolee am solo bu baax a baax yëglekaay bi ñëwaat ci image yoo xam ne fasanti ko Yilimaan Ndiaye ak ñoom eh, ki nga xam ni mooy Moustapha Naam ak ñoom Abdou jàlloo ñoom ñëpp Habib Diallo wala Abdou Diallo ñoom ñëpp kenn ku ci mën di doon yaa nga toog ca photo bu neex photo mooy bu neex kaca toog moo nekk eh, kii di waa Casamance yi nga xam ne ñooy Casa Sport fi mu toll nii daanaka ña nga ca njobbaxtalu classement ga eh, sitta ma ngay nettali li tax mu jógee Sénégal dem fële nga xam ni mooy Amérique loolee eh, def na ko moom la expliqué benn par benn lu waral loolee mu def ba gërëm nañ leen sant leen ci kanam tuuti yenn information jërë ngeen jëf